Cheikh Ibrahim buur ay waxtoo ci des mhm. Boy Niang 2 Balla Gaye 2 waaw buur làmb ji wax naa la ni la léegi mystique bi féete na boor mhm. waaye buur mystique làmb ji dafa génne weet génnewaat leneen ci ñun biñ koy xool mhm. mooy côté promoteur bi Gaston Mbengue Gaston Mbengue ci boppam mystique jàpp na ko boo xam ni bokkut ak sax mystique bii ñu foog jàpp ni ci làmb lu ji la jóge hmm. Gaston dafa yàgg a nekk ci xeexu mystique boo xam ni moom Gaston bàyyiwu ko xel hmm. te gis nga njag njabar bu la wëree ba mu daj buur pour nga génn ci dina am jafe-jafe solution amu ci daa laaj sarax jamono jii mu toll moom Gaston te bañ koo def saraxu caaxaan rek nit ñi naan lii lii lii déedéet mystiquement Gaston dafa am fuñ ko tee te ay mbiram laaj na sarax hmm. na ci teel a jóg nag balaa mbiram a gën a ëpp ay loxo ndax Gaston kat ci wàllu njabar doo xoolee ci bàttin dangay gis ni sori na ci lool te mi ngi ciy waaj xóot buur allahu ji nag nii Balla gay nii booy Niang ñoom ñaar ñëpp nañ bàyyi xel mystique bi ndax ci bu làmb ji amee buur fee temps dafay am koo xam ni gàllaajam da koy wor te mën naa loxo mën naa dem foo xam ni kenn du ko fa foog kon yuuxu dina jëpp fuñ ko jugul lii mu ngi jóge ci Cheikh Ibrahima Ndiaye maa ko wax baabulaahi jërëjëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di ziar le maire marabout d'Afrique Cheikh Ibrahima Ndiaye borom ismullahi al azam Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran baabullahi man ma yokk ci man buur baabul xayri Cheikh Ibrahima nuyu nañ la di la ziar bi temps yi li ngay sànce desal ci sa mbokki sëriñ si nag ñu commencé sànce sëñ bi man démb ñëw naa fi 47 grammes boobu la fi téer bi indi te sax yi ci gën a gramme mooy yii ngay sol man gisaguma ko koy ay sor ay sori burkina bi sëñ bi gars yi mënuñ ci am deux pièces mat nga ci ñaw ay trois pièces taalibe yi di wàcc ci kër gi nu mu leen neexee di fay ay millions rek pour sëñ bi solo sëñ bi lan la sa diggante ak taalibe yi buur xam nga ni buur ba jiite boron euh, burkina ñu koy wax morona ba sama taalibe la morona morona ba ba nga xam ne moo jiite burkina façon nga xam ne ginnaaw président de la république moo fa ëpp moom moo fa ëpp ñu ko déggal ci réew ma mooy hmm. buurub dëkk ba di buurub Moussa yëpp xam nga ni sama taalibe la. waroon naa waaw man moom sa relation ak Burkina beeg Bénin yeeg Cameroun la biir palem boobee maa njëkk a dugalub daayira ba nga xam ni ñoo nekk Burkina ñuy daaji xasida muy muy muy jolli maa ko fa njëkk a def loolu mën na ko yàlla may maa ànd ak doomu Laasana Koyaate bu Guinée ak buur bi amoon i jafe-jafe ma koy ñaanal bi ma waree a ci biir palais bi dama ànd ak daayira bi teg leen ñuy kuréel ma toog ñuy daaj wakkaana xan ba mu jeex may door wax ak buur bi kon moo solo yére yi di jóge Burkina ay kado rek mm. mais Burkina yi bu ñu gisee yi nga xam ni ñoo ca gën a rafet dañ koy teg xaalis bu bari li lay jaar nag waaye dañ mm. naan sëñ bi bu ñu àggee dinañ ko ko jaay ren indil nañ ma ci foire bi lii trente-huit gram bu buy bokkul laaj yoon waaw kon xam naa ni sëriñ bu ci lappi lappi ba gis ma koy sol nga bëgg cee dugg bu yeboo nga teey ma sëñ bi li ma jaaxal euh, kan sëñ bi buy tourné émission sëñ bi yére bu mu sol du ko solaat yére bu mu sol du ko solaat waaw loolu du émission yi kese sama dund man noonu lay dundee allahu akbar waaw man samay maam ay buur lañ hmm. man wax ju neexul sax du ma ko dégg yàlla ma bindee noonu ni ma hmm. sellee jëm ci suñ boroom yàlla daa jékki-jékki rek ubbil ma bunt bi ñuy wax raxma rahma rahmatullahi man lay dund yërmande yàlla amul lenn loo xamante ni si nii lu naqari la wala lu neexul wala yu soof yoo xamante ni si man dama ko boole sama bopp waaw mm. man njëkkoon nañ ñaanal amoon naa fi ay taalibe tëgg yoo xam ne xam nga nuñ may woowee mm. nay neex nee nañ sëñ <laughs> moom nay neex bu naqaree mu dem yoonam neex day rafet na jàmmee waaw bakke na ñëpp am jàmm Cheikh waa waaw buur jamono yee da fi joxar bi baaraam joxor bi ko jëmale ko ci borom barke yi mhm. mooy directeur société yi mhm. yenn kilifa yi ba ci yenn grade yi waaw que ñu dimbali leen mhm. ci wàllu kaaraange ak wàllu gallaaj ndax ku jiite téeméeri nit bëgg laa songandoo boo amul kaaraange jóge fa loolu réew mee ko laaj du samay wax de dëkk bii ñu nekk di Sénégal képp koo xam ne nekk nga fi yow di ab sénégalais d'origine senegal ci yaay senegal ci baay sant Jóob wala Njaay wala Joxump wala Xumma wala Mbay mhm. doonub Sénégal boo xam ne Sénégal nga ñu lay jéem a nax ci ay voix laag laag ay rulay erri arab ba nga jàpp ni mystique daa amul <laughs> boo jiitee mbooloo da ngay naani kaani mhm. loolu Cheikh Ibrahima Ndiaye ko wax ma leen gën a xam mystique fuuf mënumaa dox ci wàllu mistik dox ci lasraar ñaar fukki at ak benn mhm. dugg ci réew mu ne xam le xew ci adduna bi di wax nga naan ma diw sàngam nee na maag koo xam ne jàngagul sax lu mat juróomi at dama ni mystique bi am ci àdduna bi dafa mondialisé wu léegi loolu laa wax hmm, yamatul ci réew mi waaw Sénégal nag ku xas ba doon kilifa moo xam gug diine nga moo xam gug aada nga dugg nga ci lu sëree loo xam ne boo ko jëlul au sérieux da ci am problème waaw gars yi de c'est kilifa diine la ñuy jéem a mystique liggéey waxuma la ak directeur de société kilifa diine yi moom <clears throat> seetaanuñ seen bopp te ñu ngi ami coono xam nga koo xam ne sax yow foo toll yaa ngi sarx foo toll yaa ngi ñaanlu ba pare di daj lu wex xat ka ko deful fu mu jëm te nag buur amalu ko seetlu bu baax nga xool dëkk bi kilifa yi nga gis ñuy liggéey duñ défendre seen bopp bu ñu amee retraite kenn du ci dox ñee dañuy tëdd paralysé mm. ñee feebar feebar bu dul wér ñee jaara fa silmaxa ñee jaare fa munatu ñoo am benn dërëm bu ñu lekk or que li nekk seen yaram yi lañ nungul woon a dindi allahu akbar te ñenn ñi dañ leen di effacé sénégalais léegi dafa am xam-xam bu fi ñëw boo xam ni beneen waay ñoo ko daan liggéey waaye sénégalais yi ñu ngi koy lu léegi mooy effacé doomu aadama bi système bi moo xam da ngaa nekk ci ministre bi président fan la beneen waay bëgg post bi te xam ni fii ak jóge woo fa yow du ci jot mu effacé la te xam-xamu effacé dafa garaaw xam nga lu tax man hmm. nga si sax jaar ñàkk sa bakkan wala nga tawat ci tawat yoo xam ni dootoo wér mukk ndax nit ki bu tawatee ba xëyatul dinañ ko sensé teg fa keneen yooyu xam-xam Sénégal yi dañ koy def man buur bene kilifa gu dëkk fii ci réew mi fekk na ma fa dama liggéey looloo xamante ni rakkam ju mbokkal nday bàyyi la koy liggéeylu ngir wàllu alal dong juñ seq mu ba ko fay jële doon alalam te loolu am na ci réew mi kon kilifa yi nga xam ne boor ñoo jiite réew mi di ay nit ñenn ñi yàlla def leen ay directeur yenn ñi yàlla def leen ay njiit nañu wut kaaraange te bàyyi dof doflu gi dara dalul leen xam nañ li xew mm-hmm. man fii am na benn waay boo xam ne ab banque yor dafa am luñ ko bëggoon a defloo ci ak njubati ci banque bi mu bañ waaye daa xëy dem ci banque bi la toog tim ab papier ba di di metti jekk-jekk feebaru sil maxala ca jële ba bàyyi pasu ba allahu akbar ñeneen yor ko dem nañ ba benn jamono waa ji woo ko di ko balul àq mu ni ko ci lu ma lay bal àq mu ni ko daam lu ma la defoon te sa bët yi muur génnu ma ci bi mu ñëwee dama ko wax dama ni ko yóbbu ko ci yoon dëkk bi am na yoon waaye boo demee ci yoon nooy defaan looy wax ak looy wax ak lu mu hmm. fan la la ko def kan la ko def noo ko xamee kon waaj balaa mu si bàyyi si waaj noo dëkk bi adduna bi moo toll képp ku yor dara lu mu tuuti tuuti wutal kaaraange sa bopp te protéger loolu. mais est-ce que gàllaaju kaaraange kilifa Cheikh yomb na tamit. waaw gàllaaju kaaraange moom. waaw ndax man da dama jàpp moom dafay dépendre ci dayu nit ki. gàllaaju kaaraange gii nga xamante ni man yàlla def na ma indi ko muy kun fa yakun. waaw kay foofu laa bëggoon a ñëw. kun fa moom fa la gàllaaj yam kun fa yakku nit pour nga gis gàllaaj gu ko ëpp doole ci àdduna bii ngay dund buur xanaa ma faatu man nga koy liggéey na yéex yaa ngi dégg yàlla na yéex gàllaaj googu ma ne nga gis nit liggéeyaat gàllaaj gu dayoo bi àgg tol noonu du yomb ndax kun fa yakkoon mbir la ci kurus laa jaare ba yàlla ubbil ma bunt boobu may ma ci ay secret ma yor ko di ko doxal kilifa gi ñëw léegi ne la sëñ bi Cheikh nga naa mën la dénk naa la samay mbir dem toog kooku si na ko protéger kandang ba dara lu yàlla du jóge ci biti wala képp ku jéem ci moom dara wala ci palaasam wala ci njabootam wala ci maanaam wala ci wala ci alalam ne Cheikh Ibrahim jox naa la sama bopp yaa may coaché man kilifa yi dama leen di samp man moom boo xasee ba ba commencé jëflanteeg man ci ñaan bu soo soxna ëmbee doom sax dama lay laaj ni la tellement jox tur bi man bala moo judd ma jëm ci mbiram man xaruma muy wadd gaay di ko njëkkanteeg man man laa la wax. jëm ci mbir jëm ci jëm ci waa ji. buur dégg nga wolof nag dama ni. la ilaha illallah. kilifa yi ma samp seeni doom ku sa soxna ëmb. dama naa la jéem a lijjanti ji dëkk bi toll na foo xam ni boo ëmbee boo amee 6 mois ñu wax la góor la wala jigéen nga wax ma ki nga koy tuddee tellement joxu turam ma jëm ci ay mbiram man. balaa wadd gaay di ko njëkkanteeg yow. <laughs> waaw. moom xam naa doyam mystique. nit <coughs> bu ma lay jàppale sa njabootu bopp gépp laay boole ak say soxna ak say doom téye mystiquement te ñoom ñeneen dañuy aar seen bopp fàtte njaboot gi ba am ci biir njaboot gi ñaar wala ñetti doom yoo xam ni danay wëlbatiku ñoom tëj seen bopp ñu mujj wàññeekuwaat ñëw ci Cheikh Ibrahim ne ko dimbali ma ci njaboot gi sëñ bi li ngay waxoon doy waar. dama ne kuy jéem billaahi li ngay waxoon doy waar gars yi dégguñu ma de. dama ne ku jéem jéem jotu la. day jaar. fi la gën a jege jaare fa. yaa dëgg la dëgg la. lu gën a jigéen nit dereeti boppam amul. Hmm. nit dinañ tëj système am ci ay doomam walla biir këram. Hmm. man ni may surveiller daanaka malaaka sax lay gën a niru ci bu may surveiller mbirum nit. bu ma hmm. lay seetal sa lépp lay seet. du may lay seetal sa lépp laay seet waaye bu ma lay ñaanal sa lépp laay téye man bu may samp doomu aadama mook ak njabootam laay boole samp hmm. moo xam doom jum bëgg ak doom jum bañ man niw ma ci yooyu koo mus a jur dinaa ko sampale ndax bu ma leen seetaane rek mu mel neneen foofu laa nekk ak samay teel bi moo tax mënuñu maa bàyyi koo xam ne nag dangaa xas ba ñëw xam-xam yi ma yor yi ci gën a mag laa lay liggéeyal su dee am nga kattan nga ndax kun fayakun gii dafa am sangat am sarax am jaaro képp ku ma complété ñett yëpp ba liggéey la ko mucc ka ci mucc nga ci ak njabar buur bu doon da nga fiy dund téeméeri at ma ne li ma ci gën a yéem mooy kun fayakun gi am na loo ciy jëfandikoo sëñ bi nee na bu dee da koo jëfandikoo nekk ci marché yow ma ko jëfandikoo aar nga waa marché ba ci ay njabar waaw dama ni marché da ngay gis commerçant bu ndaw ubbi ab place munta am dara mhm. mag ña fa nekk ñoo ko dëggate ay olof laay wax man dama ni da ngay su commerçant ubbi place nekk ci marché di jaay munta am dara fu ne mu jot juuti jëm fa lu ne mu wax ko ku ne mu lu ne mu sangoo ko fekk commerçant bu mag ba fa nekk moo tëj marché bi loolu day am ci secret na ko nit ñi mm. xam mm. yaa ngi dégg moom jekk ba pare um ñeneen waaw nit yi da nekk commerçant bu mag ba pare nit ñi tëj sa dépôt lu fa dugg du génn yooyu day am moo tax secret kun fayakun bi dama koo ubbi dafa large moom mbooleem xeetu problème bu nit am su ñëwee mën naa ko ci jàppale ci secret bi secret bi nag boo xasee bay dugg si dañ lay jox règlement yi ni muy demee. da ngay ah, respecté dafa am ay conditions dafa am condition da ngay respecté sarax yi génn yépp te bañ fee nekk naan li ak naag na le doxewul noonu. sëñ bi sarax yi mbaa lu seer ko. waaw sarax yi moom danaa la biteel bi ma lay jox nga koy sarax dama koy dëjal comme ni ñuy dëjalee nit ku dee. naka perkal nagu dëj. ceeb diw non non kaamil ak wàcce kaamil nakk yi lañuy génne dañuy xool ñaata at nga am ñu jënd ko ci ay kilo dugub ak ay kilo ceeb jënd gàtt rey ko dëjal bitig bi gannaaw ba ñu xool ñaata at nga am ñu jënd ko ci ay kaamili alquran kaamil bu nekk ñu ubbi ko jàng ci liwub kun fayakun wala sa limi at pare sarxe ko defaral la sangat yi nga sangoo ko liggéey la jaaro bi ci sirru kun jaaro bi nag day ànd ak soixante-dix rawxaan ak soixante-dix xuddaam yoo xam ne yow la ñuy déggal seen mbir la ñuy nekk mais sëñ bi benn rawxaan rek sëñ bi bokk yow benn rawxaan rek sëñ bi pouvoir am bi ah, de soixante-dix lay àndal jaara bi nee naa la boo fekkee nit ku toog ku njabar mu ne ñog ñog gaaral boo ko nuyoo njabar gi taj yow mi ko takk kon sa jëm bopp tax ñu la ñu lay wax te nee naa la jaaro bi boo ko dugalee ci kër mu mat ñeent fukki fan ak benn protection kër gi moom déjà c'est assuré fii yaa ngi fay nelawee dafa yeewu moom amal jàmm sekkar la boo xam ne daal sekkar bu am doole la baabulaahi gi rek nga ko mën a jëlee barki borom Tuubaa fii ci man <laughs> Cheikh jeex na mais sa taalibe yi nekk Dubaay mhm. euh, waxuma milliardaire wu sax euh, milliardaire ba milliardaire ba nga fi seetaloon wax ko wax yu yéem a jë ba mu jaral ko jooy yu métteem ya waaye waa Dubaay ci boppam rawatina sénégalais yi dund Dubaay nee na Cheikh Ibrahim kañ lay ñëw Dubaay seet si leen. Dubaay maa ngi waajal Dubaay. moom hmm. laay boole ak Qatar. Hmm. Qatar dama fa am ay gaay damay bañ a tudd seen tur ndax àdduna bi léegi daa xat koo wax ñu ne sëñ bi wax na démb say mbir. te hmm. man ay kilifa laay ñaanal te loolu dama koo assuré ndax dafa bokk ci maandu ñaan. booy ñaan da ngay maandu. jaam ñi mënuñu laa wax seen lépp nga génn waxaat lépp sama yaay neewoon na ma na nga teel a am bàmmeelu biir ndax biir nit ñi lañ dugal sa dëgg la. kon na nga am a am bàmmeelu biir moo tax daray kenn du génne fii fii lu fi waaye wax boo ko déggaatee yàq wax man de am na jongo ma juma ni Cheikh Ibrahim li ma gën a neex ci moom mooy du dub sëriñëw nan la nan la utiliser baat bi alafitti ma ne ko luy alafitti mu ne ma doo ko fekk mukk ci lu neexul yàlla wala lu ñuy xeebee as gor waaw man damaa génnul bay bay bay xam lu neexul yàlla ak lu ko naqari mm-hmm. man lu neex yàlla rek laa xam waaw moom de ku fi ñëw fii la lay fekk ci kër xam ak diine ak turu yàlla jàng alxuraan xëmmale neen aajob jàmm bu mën a doon nag moom bu gaa yi ne mënuñu koo jot li suñ borom man dinaa ko yóbbu ba mablaxar rijal yi lu dul yàlla sax di ko gis mooy malaayika yaag nit yàlla yaag ñëpp dinañ xam ni yow sab aajo dem na te Cheikh Ibrahima Ndiaye Baabulaahi ko fi indi man foofu laa toll ci xaddatu ilaahiya hmm. bur xam naa li nit ñëpp di xam yàlla ma bindee nii rek mooy ma wàcc ba yam tolloo nit ñi mën a ànd ak ñoom waaye sama diisaay dëgg-dëgg ko tegee seen kanam duñu ànd te damaa bëgg ànd ak ñëpp man moo tax nit ñi daal nañ ñëw fii ci baabullahi xam ne fi la aajo yi fajoo lool suñ borom a ko def ci kaw suuf si mënuma ci dara